naka la ko defee it ci installation bu assemblée nationale daanaka dara sennul ci yëf yi waaye li am ba am réew mi quotidien di xam ne ni kon dina bëri lool ay mbetteel ci bile gouvernement nga xamante ne tey ji lañu ko war a fësal tey ji la ñu war a fësal premier ministre ak bu bees bu ñu sukkandekoo tamit ci les échos yéene kaay bi dikkaat ci li mu jàpp ni moo gën a jàmp maanaam priorité ngir gouvernement bu yees bi ñëpp di ko xaar tey la tey lépp dina leer rawatina ngir jege ñaale Macky Sall yi enquête di dikkaat bi mu jàpp ni ñuy fësal ñu war a bokk ci gouvernement bu yees bi rawatina premier ministre bi poste premier ministre la tribune jàpp ni tamit xaar bi yàggoon na lool waaye tey ji la ko ñëpp war a xam yéene kay groupe des médias bi dikkaat ci kàddu njiitu réew mi Macky Sall yi mu yëkkati démb mu mel ni ku noppeegul ci liggéeyam kàddu yooyee mu yëkkati démb Walf Quotidien dikkaat na ci ba noppi jàngat ci ni njiitu réew mi dafa mel ni théâtre la doon def ni ki démb ndax dara waxu ko ci li mu waxul dara moo tax Sud Quotidien natt discours boobee ba di def waaye dara waxu ko ci li mun a dugg ci xelu askan wi dugg na ci xelu askan wi am déet l'observateur dafa jàpp ni Macky Sall dafa mel ni ku doon fooy xelu askan wi ni ki démb ndax li jara wax yépp dafa mel ni daf ko teg ci suuf jël li nga xamante ne moo xew ci assamble nationale bëgg ko rek fësal lu xew assemblée nationale opposition bo wane fa boppam moo tax source a gis ni Macky Sall li mu wax yépp daanaka ŋàññ opposition bi la def mel ni sax ku leen di dànqaafu waaye gannaaw tontu du forox opposition ci biir yéenekaay bi di 24 daanaka lu ñu yàkkul njiitu réew mi Macky Sall dañu ko fàtte bokk na ci Mary Teuw ñaan mi jàpp ni moom Macky Sall amul lenn li nga xamante ne wax na ko lu am bopp ak yenn ni ki démb na Bocoum di ko ci feelu gis ni kàddu gi moom mënoon naa sax ñàkk ndax dara waxu ko ci noone la ko Malick Gakou gisee moom jiital grand parti ne Macky Sall yëkkati na ay kàddu waaye waxu ci dara Macky Sall wax na kay bis bi le jour di xam le ni xanaa kay dafa am rek li nga xamante ne dafa mel ni da koo fàtte bokk na ci coowal ñetteelu mandat bi nga xamante ne ñëpp ko ciy xaar ci coowal ñetteelu mandat boobee Mimi Touré mi réew mi quotidien di xam ne ni kon dafa am ñu koy xoqatal di ko def ay menaces de mort moo xam ne ni askanu Sénégal ñu ngi doon xaar njiitu réew mi ci coowal ñetteelu mandat waaye ba léegi àdduwu ci li mu ci àdduwul moo tax Vox Populi jàpp ni Macky Sall bugut te addu ci li ko askan wi di xaare muy coowal mandat bi waaye tamit ni mbëbët dëgg-dëgg dafa mel ni député yi ñoo ko tax a jóg li mu wax lépp ci assemblée nationale moo tax le quotidien fas yéene dugal loxoom ci xeex bi muy xamle ci biir yéenekaay bi ni li xewoon ca assemblée nationale moom méngool ak démocratie Sénégal yokk ci di xamal député yi ni kenn warul yàq li nga xamante ne mooy melu askan wi askan wi doon déglu xalif général kullu murid ni ki démb lu bëri lañ ci jàngatee l'observateur dikkaat ci cérémonie officielle bi ñu doon amal ni ki démb ñeel màggalub Tuuba bi wax ci kàddu yooyu nga xamante ne sëriñ Muntaxa Mbàkke daal dina ko yëkkati mu gis ni kàddu yi nga xamante ne ku ci nekk mën nga ci gis sa bopp moo tax sax Sud Quotidien ko mëngale sax ab xutba bi nga xamante ne almuntaxa daa na ko yëkkati ni ki démb ci biir xew-xew bi nag jëriñ ji ñu denk karange bi réew mi woon délégation bu gouvernement bi wax ni moom Antoine Félix Diome état bu Sénégal def na lépp li nga xamante ne digle na ko woon ci wàllub ndox rawatina wàllub assainissement mu mel ni wuute na lool ak joytu bi nga xamante ne taalibe yi ñu ngi ko doon fësal ci diirub màggal bi libération xëy fësal doxalinu njublang bi nga xamante ne ay samba boy ñoo ko doon def bokk na ci ñoom sax ab policier bi nga xamante ne ca commissariat commissariat bu caaxoy la nekk moom mujj gi sax dañu ko teg loxo ñu daal di koy placé sous mandat de dépôt naka noone ñaar ci ñi nga xamante ñoom la doon lëkkalool ba roppi lu toll ci ñetti millions suñu koppar ci ab homme d'affaires bi nga xamante ne dañu ko doon tuumal wàllu drogue ak ay faux billets yéenekaay bi di stade dikkat na ak Aliou Cissé li mu fësal ni ki démb li mu ñaar fukk ak juróom-ñeenti suwar yi nga xamante ne taamu na leen ngir jongante xarito diggante Sénégal ak Bolivie waaye tamit ak Iran ci lim boobee toll nañu ci juróom benn suwar yi nga xamante ne ñëw nañu bees bokk na ci ñoom